non seulement de Sonko, de, de, de Diallo, mais d'aucun autre nom. Aucun nom ne figure sur la plainte adressée à M. le procureur de la République. Et il dit, je vous saisis pour des éléments qui pourraient être constitutifs d'un détournement. dire détournement par qui Dans quelles conditions mais mais kii kii kii kii nit la mais liy jom ak ngor mooy boo boo tamee sa nit sa nawle ne kii dëmm la war nga wan ne kañ la lekk sa doom wala kañ la lekk sa mbokk yaa ngi tam nit dëmm di mën génne benn preuve lii metti na trop moo tax ma ne leen gis ngeen li am mbaam mooy bi ma ko dëkkee keroog barki démb ci Café de Rome ni ko doo mas génn preuve barke alxuraan ko génn parce amoo ko ma dégg ni day def conférence de presse tey ma ne ñaara war a defe ñaar rek mën am mu ñëw dina indi ay papiers yoo xam ne dara du ko dëgg suba mu fanaan prison ndax boo dee rek flagrant délit de faux usage de faux

kan mooy viré xaalis bi ban jour la ko livré la ko viré ci ci fan ci ban compte ma ne bis bu ko wanee barke alquran nga xam ni man man man jaam laa te man jomm naa def fenn man ku dul ku dul Mamour Diallo sax jaraloo ma fenn ndax jaraloo ma sama bàmmeel barke alquran muy Macky Sall Abdoulaye Wade ku mën a doon Abdou Diouf ku mën man masuma nekk jaamu kenn man kon Mamour Diallo jaral suba ne billaahi sonko day katch bi bi dara ko la wax c'est pourquoi ma ne 94 milliards de mensonges ba tay de kenn weddeegu am ñu taxaw na procureur def mais procureur porte ben Mamour Diallo ah x rek dénonciation rek la je bëgg xam ba dof man dof bi ñi xamul procureur ay même ko grand bi je l'aimais bien ndeysaan Momadou Seydi Ndiaye yàlla ko yàlla yërëm toog di wax ci l'essentiel mais le procureur n'a qu'à quand même nous édifier parce qu'il pensait que effectivement il y avait une plainte déposée contre Mamour Diallo vous avez ko ni muy naxee nii kooku dee na te xamul ba léegi ne plainte bi turu jàll Diallo nekku ci seytaane la boo xam ni man de décidé naa man mi ji man mi ooyee avocat du peuple et député du peuple billahi bàyyi woon naa ko muy wax ay njaaxum ma di ko seetaan ne kii dafa dof mais comme ñëpp xamuñu amuñ niveau d'information bi ma am duñ liggéey tribunal comme man xam la xaw tribunal mën a am document yi tribunal man danaa dimbale sama askan man damaa décidé dimbale sama sama askan bala ñu koy ndax këf ko këf réew mi jaay réew mi comme ni mu ko defee ak tulow ak BBC loolu daa jox beneen bis ne leen bu ma ñëwee yéntuloo bi Karim Wade dàqoon jox affaire bi Franck Timis dama leen joxaat mbir mi ñu financé campagne am loolu yëpp am naa preuve yi dara ci ñëwaat beneen bis fan la amee lu bu campagne wëree diaspora bi ak yu bëree bëri xam ne ñu ko téye wax ko démb de ci seen TV ñu ko ñaata la Karim Wade jox ci Karim Wade jox na ko xaalis ci campagne électorale bi passé moo léegi mu jébbalu ji ci bàyyi Karim wàdd léegi taalibe Ablaye Wade la moo ne war wàdd dañ ko war a fetal moom Macky Sall ak Abdou Diouf léegi nag wàdd mooy sëriñam waa kii bu dee ñoo ñu may saaga suba ngoon ñu may dégg ngeen ne waaw lu mën a defee ñun moom lañ bëgg moo moom lañ gëm moo gëm leen ko mais Boko Haram Libéria yëpp Nigéria am nañu ko gëm ba léegi mënu ma leen tere ngeen nekk dof na bokk Haram ay dof lañu état islamique ay dof lañu taxaw di rey sa mbokk julit dem ci jàkka yi di tiire ay jullit comme yow ñuy dee nga ne nga jullit nga yooyu ay dof lañ li waaye ay nit lañ nag bokk aram bokk aram ñi Sonko mais bokk aram ñoom gënuñ bokk aram de yàlla leen boole ñoom ñoom ñu nekk ay seetaane ñu ci bëri nag xamuñu woon dara da leen ndax waaye ñu bëri woon nañu ma démb ni ma bàyyi day Sonko pare gi oote oo nañ ma Kédougou oo ma Maka Koulibantang ku saa naar fu ne oo nañ ma fa ay Dakar ay Pikine ni ma hee maître suivre nañ la mais li nga wax dafa leer nañ naka waa ji fukki milliards ak benn la bëggoon ci 94 milliards yi nga xam ne fayaguñ ko mu ne fay nañ ko ba détourné ko te fayaguñ ko bëggoon a forcé ñu fay ko mu daal di tëq 11 milliards yi fukki milliards ak benn daal di dem ak moom ma ne leen affaire faire bi muy wax tey pour nous divertir parce que daf ñu bëggoon a nax wax naa. laaj naa ko ne ko waat naa ko ci alxuraan doo ma sa génne preuve mu woote tey génnul benn preuve naan saisir na ay juge d'instruction léegi après procureur daw na nee na juge d'instruction ñi muy waxal la yeb ay weeri weer lu ñu wax mu ne procureur bu ma feree ne mais ngay fen may naa leen ko yéen ñëpp bu dee daaw nekk procureur lay nekk procureur lay nekk poste d'appel Mamour Diallo boobu lay nekk mu oma léegi nag bi commission d'enquête pare bu yëpp leer ñu xam ne mosul porte plainte contre Mamour Diallo mu ne léegi juge d'instruction matagul weer di loolu te dañu tympaniser sonal ñu ak procureur lu muy nekk procureur lu muy nekk te yow portewul plainte kenn <laughs> di di léegi nag bi affaire bi leeree bërki démb saa waay ni day def conférence de presse ci feer bi feer bi li mu ciy wax yi waxoon nañu ko ba pare mut ban génne na lii wane ni dafa am problème scandale man xaw ma am na xaw ma amul mais génne woon na ko génn war na le scandale du siècle qui ferme encore contrat état du Sénégal Tosiali, sur le fer mooy les turcs Puis, mu ne ki arrêtera Macky Sall mut baa na ko bind ci affaire fer toujours mu les mines de fer de Falémé cédées à la société turque Tosiali, sans appel d'offre Li aussi bindu nañ ko donc tey amul dara lu bees lu mu indi waaye ñi xamul ak ñi liirutoon lii ñi yëgutoon dara ci affaire fer bi ak li ci wax yëpp ak même même waa PDS seen conseil seen avocat yi waxoon nañ ci ñi xamatoon lii wala liiruñu ko woon wala fàtte nañ ko dañu foog moom mooy gëstu ci alalu réew mi comme comme weñ yeeg or yooyu zircon beeg yooyu pour leeral Sénégalais yi alors que Moutbane na ko ci fayul droit d'auteur à Moutbane joxul joxul Moutbane ndàmpaayam ndax moo génne xam-xamu bi xam ne Moutbane ko génne ci Sénégal ñëpp am ko mu ngi nii muy Dakar Times. amnañ fi octobre la guerre depuis 2018 le 17 le 19 le 27 octobre ñi yëpp a ngi ni ñett yi date yu ngi ci biir octobre 2018 man na fukki weer fukki weer ba na octobre deux mois ci un mois et quelque presque fukki weer ak ben waxon nañ ci amul lu fi mëna wax lu bess li jëm ci fer bi fallait mais lu ñu scandale amna wala amul wax nañ ci ba paré ba geex ba avocat PDC wax ci jomit ba geex def ci article bu mag waaw ki dal mom comme dañ ne ko preuve bu dof il fallait mu xam nga kuñ pikir dama ko pikir en fait dama ko pikir de ko dama ko pikir barki mu ah non barki dee que de gars fikir la ko dem génne génne njaago bi ndef woné da dëgg gi rek xam nga mun rakkaajoo xam nga bo rakkaajoo da amati sans froid mu né day tontu mais day yott conférence Sénégal yëpp monde bi yëpp di ay ay preuve tey mu ne non dem saisir naa justice d'instruction bi comme dem waxé waxee bi ne ko génne preuve bi saisir la procureur waaw moom dinañ koy bàyyi rek mom day foyee Sénégal quoi di leen di leen bal di leen ping pong daal mel ni bu génnee preuve bi dañ koy tëj. nit ñi boo génnee preuve yow mi journaliste dañuy tëj au contraire loolu moo war journaliste boo génnee preuve da nga bind da tëj au contraire li nga bind boo génnee preuve kenn du la laaw day dox ci maayanu nit ñi affaire dóorkat moom moom it dóorkat politique escroc politique la Sonko est un escroc politique est-ce que man am naa droit man li ma xëy Abdou Diouf ba daanu avec le FAL hôtel indépendance foofu FRAPP laa nekk ak Mademba Sock deuxième tour yi créé le FAL porté la candidature de Ablaye Wade 2012 ma ànd ak Macky Sall ñu créé à l'hôtel Radisson Benno Bokk Yaakaar entre les deux tours ñu daane Ablaye Wade bi nga xam ne ñu ñoo ko faloon ndax depuis le 23 juin laa ko baax xam ngeen l'homme du 23 juin du ba ma koy attaqué 23 juin maa ci groupe parlementaire bosam bu dudd waat ñi may saaga di wax seen waa ji daa wax yàlla fi def ci réew mi gis naa benn journal bi mooy saaga temps yëpp wala fajari naan ki nekk troisième bu di ko attaqué waaye bu dee même boo nekkee premier Macky Sall sama xarit bi mu jàppee Khalifa Sall waroon leen koo jàpp. ba tey jii dañ ko war a bàyyi maa ngi ñaan Macky Sall mu bàyyi Khalifa Sall joxuma la ordre nag parce que ñi la xamul ñoo ñoo la jox ordre ndax bëggoo ko la jox ordre Macky Sall da ngay wax ma wax ñu neex am li nga boo boo melee ne yenn booy yi tëb di dal di ko yuuxu na ko ngay bàyyi euh, Khalifa Sall du ko mas a bàyyi dama ne nit da ngay xam comme moom moom yi fam grâce bu boo ko moom ah koo ci jéem a jaay reewande ak forcé mu ne maa ngi lay xool léegi defal grâce ko yow nit da xam boo bëggee am ci moom li nga bëgg sa jëkkër sax yow bu dee jabaram nga da ngay xam ne ngay nekk sa ci guddi gi noo xam ne moom mu defal la li nga bëgg yëpp may la kër gi da la oto waaye duma tëdd nga yaakaar ba pare parce que moom nga yaakaar grâce Macky la yaakaar quand même ni sa jëkkër yow daal jógal fële da ngaa salte ah, ngay tëddee doxul ba pare nga ne ko may ma oto foofu waaye jëndal ma kër wala may ma bassin bu rafet sa jëkkër dana faale nit ki li moom da nga koy nangul moom moom grâce moo ko moom yàlla ko jox ndax constitution be ko jox mais Macky kon dama la ñaan man mi sa xarit depuis ñuy jàng nag rek xale yu ndaw mi ne wax dëgg nag ci yaay jàmmee ci Khalifa Sall ak ci ñëpp man maay kenn benn nit kenn Sénégal peut-être Sidy Lamine Niass moo doon ñaareel bi may ànd ak Ablaye Wade 23 juin ma ne ko hé peuple bi nga bëgg a nax def ticket présidentiel banaa la ànd ak peuple ba ko ànd ak ñes premier tour Benno Siggil Sénégal deuxième tour Macky Sall Benno Bokk Yaakaar alors terewul maa gën a weex ci Macky Sall maa gën a tàng ak Macky Sall fu mu defee dunu loonu may dal ci kawam ndax dama déggoon dama jàngoon nag macha allah dama doon jàng nag ñu ne ma ku aime bien châtie bien Sénégal n'a quinze bien caresse rek mu ne Macky ne doit pas faire ça ñu ne moom kat léegi opposant la y a des gens am na ñu dem man man El Diouf transhumant la Mon ah man ban camp laa nekkoon avant may réélire sama candidat maa qu'on fal 2012 falaa ko 2019 man dama bokk ñu jóge PDS daw fekk Macky Sall bi ñu duma ba pare mais dans l'opinion les gens comme dama critiquer di ànd li nekk ak opposition bien, qui ah, ci yenn position yi gens léeg-léeg ñu bokk ay position may dóor dóor ñu foog ne léegi opposant la fekk yàlla ma bind ci lu ma gëmul même lu ma ànd ànd ak yow du ma ko défendre kon dañ ma nangu loolu waaye ma gis ñu ah El Hadj a trahi mais laa trahi ban kan laa bokkoon ba di ko trahi ka ma watee loon laa watee laat 2012 2019 ci diggante bi dafa am benn élection présidentielle dañuy dox ci kaw maayoon di ma jaxase ak àddina bi. naan kii moom gëmul dara waaw kan laa gëm Macky laa faloon falaat ko du ñu wax ñi nga xam ne ñoo Abdoulaye daana ñoo jëw jébbalu léegi ci Macky Sall loolu kay ñooñu lañu war a wax xanaa ah. ñi perdre pouvoir mënuñu mun ñu daal di fekk waat Macky Sall man maa nekk au pouvoir ba pare di critiquer pouvoir bi nekk Benno Bokk Yaakaar di critiquer Macky Sall waaye yéen ñooñu may saaga suba ngoon jot ngeen foog ne seen waa yooyu moo ma moo ma ëpp moo ma ëpp mérite Sénégal gi man li ma def Sénégal dafa def sax dafa def dixième bi keroog ba ma gis ne tur bi 23 juillet assemblée muy toog bloc fiscal teg climatiseur am kenn wàcc fa gis ngeen fa ay Aïssata Tall Sall Namsaye Tanor Dieng Moustapha Niasse yore xeeram Alioune Tine yëpp ñëw xees ay Cheikh Yan Gadio ñëpp man ma nekk rek seen seen seen Balla Gaye ci biir ñoom ñu nekk samay supporters ñoom ñoom Macky Sall ñii ak ñoom Moustapha Niasse ñoo ma doon supporter ma nekk seen leader ci biir hémicycle bi am na wala amul. ana booba booy bii di jaay ni mooy moom mooy patriot te ñu bëggoon booba. jaay Sénégal moo mu ngi woon bloc fiscal tal climatiseur am di jaay ay terrain sur terrain aéroport yi moog syndicaliste yooyu parce que boo doon jënd syndicat bi kon yéen ñooñu may saaga dama xam ne kan moo gën a mérité kan la Sénégalais gën a gën a naw entre sàcc bi ak kii joxe bakkanam di xeex même ak xaritam bi président de la république bu d'accord ci président bi def kan moo ëpp mérite donc ma ne man dafa affaire bi leer na wan naa leen yëpp dafa ñuy naax.

Je connais la destination, j'ai les virements, j'ai le compte bancaire. Quatre rek barke alxuraan quatre la barke Nabi Moustapha day kàcc. ti maa de Je suis un défi Mané yow Ousmane Sonko nga un Sénégal man un défier waaye respectez le journaliste au moins. génneel preuve virement xaalis yooyu ci Mamour jàllo fu mu jëlee xaalis bi ndax Sénégal yi nag am lu leen leer dos ci yow yaa ngi bëgg a def nit ñi porte de plainte rek porte de rek waaye yow joxel këyit yi amul yooyu këyit amul li am fen moo am ma sur porte plainte Mamour Diallo ñëpp foog ne da ko porte plainte ñu naan ñu naan nan nekk nañ nekk ba ba pare plainte bi ba amul benn tur du Ibra Ibra Diop du Lamine Ndiaye du Mamour Diallo du Issa Cissé du kenn benn xale benn jaaykat yi caafa biri kayitam rek la ni parti Pastef laa bokk procureur xoolal ma lii ndax mën naa mu am détournement mën naa am présumé nee na Mamour Diallo sàcc am naa preuve kon da nga di présumé xëy na moom rek a jàng ñu jàng ñu dara loolu laa leen bëggoon a wax li tax tey ma ne presse bi kii suba bu waxee ba pare daa ko tontu xam nga tey conférence de presse bi nu mu ko tuddee. conférence de presse tiiñal parce que da ko annoncé ma annoncé xam ko dëbbu ma man da ko annoncé démb ma annoncé ko démb ma seen TV ci télé la ko annoncé seen show kon waroon a préparé wu indaale ay preuve xam ne moom laay nekk dama koy xoj dama ko xoj fi mu nekk dama ko téye ci ko téye ci ci point moo tax ma ne ko suba boo paree ma jël ndax mënoo indi benn preuve bu wedd man li ma waxoon barki démb de Dakar Instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant. Abonnez-vous sur YouTube